asalaamualeykum wa rahmatullah noo ngi dellu si di teewlooti war weesu wenn waxtu woo xam ne dañu teewlooti teewlu gu deme nii fa tabaarakallaahu sëñ bi nee na noo ngi sant bu baax a baax baax a baax kilifa yu tedd yii ñu leen di tudd di tudd sëriñ bi bi di leen sant gërëm bu baax a baax a baax di leen sante sunu borom di leen sante sëriñ bi sant ñoom seen bopp sant ngërëm lu rëy rëy di sant ñoom ci seen bopp it cant ak ngërëm lu rëy rëy rëy. lii la am nañ ci yéene am nañ ci pasteef. nee na lii dëgg la am nañ ci yéene am nañ ci pasteef. alhamdulilah rabbil alamin dañ koo fekk ci ñoom. waaye alhamdulilah rabbil alamin dañ koo fekk ci ñoom. nu àndandoo ko nu àndandoo ko. ba jataay bi mën a am. loolu fa tabaarakallahu dal na xel bu baax a baax a baax. sëriñ bi kenn mënu ko jox ak xam. sëriñ bi kenn mënu koo jox ak xam. ku seet diggam ak boromam diggam ak yonent bi. ku seet digganteem ak boromam ak digganteem ak yonent bi. xam ne kenn mënu ko jox ak xam. di nga xam ne kenn mënu ko jox ak xam. waaye lu lu ko tële tële tële nag. waaye lu ko tële tële nag. war nañoo jéem. waaye war nañoo jéem. ndax jataay bu mel nii. ndax jataay bu mel nii. ndaje mu mel nii. ndaje mu mel nii. teewlu gu demee nii. teewlu gu demee nii. danoo war ci sëñ bi. danoo war ci sëriñ bi. ci waxtu bu nekk. ci waxtu bu nekk. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. bari nay gàllankoor lool. bari nay gàllankoor lool. waaye nu fab suñuy waxtu yëpp. waaye nu fab suñuy waxtu yëpp. Eh, jox ko sëriñ bi. jox ko sëriñ bi. di ko di ko di di ko sant. di ko sant. cant gu amul ab. cant gu amul ab. sant gu digg. diggam ak boromam. sant ko diggam ak boromam. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko ci bopp diggam ak boppam. sant ko ci diggam ak boppam. sant ko it suñu diggante suñu diggante ak moom. sant ko it suñu diggante ak moom. yooyu cant neexut a boole. yooyu cant neexut a boole. te it moo nu war itam nag. te it moo nu war itam nag. kon nañu sant yàlla bu baax a baax. mu ne nañu sant yàlla bu baax a baax a baax. ba nu ba nu suñu borom booleeg sëriñ bi. ba nu suñu borom booleeg sëriñ bi. xeeraat nu ci moom. xiiraat ñu ci moom. ba bëgg ko. ba nu bëgg ko. yemale wuñ koog dara. yemale wuñ koog dara. gëm ko it. gëm ko it. suñ digganteeg suñu borom. suñu digganteeg suñu borom. mu doy nu sëkk. mu doy nu sëkk. biir ak biti. biir ak biti. tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. kon sant rek kon sant rek moo nu war. te di ko jéem a nag sant. te di ko jéem a nag sant. jéem sant gi weesuwul. jéem a sant gi weesuwul. dellu ci moom rek. dellu ci moom rek. nekk nekkal ci rek nekkal ci rek ci li mu bëgg. nekkal ko rek ci li bëgg. moom boromam rek la bëgg. moom boromam rek la bëgg. mu ko digal. bëggul leneen. bëggul leneen. ci loolu rek la nekkoon. ci loolu rek la nekkoon. bañ ko xamee. bañ ko xamee. di ko gis. di ko gis. ba biñ ko noppee gis. ba biñ ko noppee gis. kon nag alhamdulilah rabbil alamin. kon nag alhamdulilah rabbil alamin. Mbacke ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. nee na Mbacke ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. lii ma wax. lii ma wax. ci sant gu nu war a sax ci sant ko. ci sant gu ci sax gu nu war a sax ci sant ko. dama ko wax rek. nee na daf koo wax rek. waaye noo ko bokk. waaye moog yéen a ko bokk. xam naa ne moo nekk ci yéen. te moom xam na ne moo nekk ci yéen. sëriñ bi rek sëriñ bi rek a nekk ci yéen. sëriñ bi rek a nekk ci yéen. loolu nañ sant yàlla bu baax. loolu nañ sant yàlla bu baax. te jëmee ko kanam rek. te jëmee ko kanam rek. suñu yitte jëpp. suñu yitte delloo sëriñ bi. nañ ko delloo sëriñ bi. bu nu ko defee. bu ñu ko defee. dinañ noppalu teeg ëllëg. dinañ noppalu teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. dinañ defaru teeg ëllëg. dinañ defaru teeg yëngu yëngu baa ngoog. kon mu ngoog yëngu baa ngoog. lii. nee na lii. dana jéem rek baaxantal rek. neen dañuy jéem rek baaxantal rek. waaye dañ ko waroon a def wird. waaye dañ ko waroon a def wird. ndaje mi yëpp. ndaje mii yëpp. dañ ko waroon def muy benn wird benn wird. dañ ko waroon def muy wenn wird. boo xam ne dañuy am pastéefu. boo xam ne dañuy am pastéefu. bés bu set du def ko. bés bu set def ko. loolu mooy sunu moo doon moo doon moo yey ci sëriñ bi. loolu moo yey ci sëriñ bi. kon nag ginnaaw mënuñu loolu itam nag. kon ginnaaw mënuñu loolu itam nag. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax. nan bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax a baax. delloo ko sunu lépp. delloo ko sunu lépp. delloo ko lépp. delloo ko lépp. di yëngul. di ko yëngul. di ko yëngul ci su su suñu lépp. di ko yëngul ci suñu lépp. defal defal defal defal ko defal ko ko addiya. defal ko ko addiya. baaxantal ko ak sunu cant ak moom. baaxantal ko ak sunu cant ak moom. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. di sant bu baax. sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. ak bokki taalibe yi. yi nu bu baax a baax. yi yi nu bokkal lii bu baax a baax. taxawaay bi ak jataay bi. taxawaay bi ak jataay bi. di leen gërëm sant di leen gërëm bu baax a baax. di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. waaw kon nee na mu ngoog rek. di sant suñu kilifa yi nga xam ne moom ñoo ñoom lañ fi nekkal. di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal. ñooñu ñooñu ñooñu tàggat. ñooñu tàggat. ñooñu tàggat ci sëriñ bi. tàggat ñu ci sëriñ bi. wan ñu bi. wan sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. di sant bu a baax. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. di leen gërëm bu baax a baax. di leen a wan ne noo ngi seen i tànk. di leen wan ne noo ngi ci seen i tànk. sunu kéem kattan. sunu kéem kattan. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. xamuñu lu ñuy wax. nee na xamuñu lu ñuy wax. nee na xolam dafa sedd guy. yaakaar dolliku lool. yaakaaram dolliku lool. xel gën a dal lool. xelam gën a dal lool. jërë ngeen jëf Mbàkke. jërë ngeen jëf Mbàkke. jërë ngeen jëf mbokki taalibe yëpp di leen sant leen gërëm na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal. yegg rek. nee na yegg sëñ sëñ Fall sëñ Fall moom sëñ euh, sëñ Moutala nee na ko yegg ak yeggal yeggale rek Mbàkke waaw na ñëpp nangu ñaan. amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke